Euh, merci de nous suivre si nga xam ne moo di Sénégal 7 TV comme ni ñu koy defee saa su nekk euh, ñu ànd ak benn kilifa dañ koy bàyyi d' abord mu daal di présenté wu ñi nga xam ne ñoo koy seetaan à travers Sénégal 7. mais merci beaucoup euh, maa ngi tudd Abdoulaye Faye bokk ci pôle communication bu candidat Amadou Ba. waaye aussi bokk ci responsable yi ngànk Benno Bokk Yaakaar. alors tey jii 24 mars 2024 ñu daal di amal élection présidentielle donte li fi xew yëpp tey jii euh, borom bi def nañu ñu daal koy amal euh, candidat yu bëri jot nañoo euh, def li nga xam ne moo di seen droit civique daal di voté yow it bokk nga si ni nga xam ne voté nañ tey jilee ban impression nga am tey jii si déroulement wu vote au Sénégal. mais merci beaucoup comme ni nga ko waxee dañuy sant suñu borom d' abord subhaanahu wa taala bi nga xam ne. permettre na ñu ñu def campagne d'abord si jàmm parce que élection yi bañ koy waay coow li bari woon na yàlla def nañu def campagne bi si jàmm malgré que délai yu ñu doon def campagne d'habitude dañ ko raccourci waaye aussi tamit campagne bi tombeek ci contexte muy contexte weeru koor waaye aussi contexte carême pour les catholiques mais malgré tout ça donc def nañu campagne ci jàmm candidat yi dem wax ak askan bi ba tey suñu borom def ñuy woote te bu ñu xëyeek léegi déggaguñu benn incident majeur boo xam ne euh, am na gàllankoor ci vote bi loolu ñu koy santee sunu borom waaye aussi sant population Sénégal bi yëpp parce que dafay wone encore une fois que Sénégal c'est une démocratie majeure et à chaque fois peuple bi wane maturité am alors ñu gis si euh, yenn centre de vote yi nga xam ne fa la ñu daal di jógee si lu si mel ne HLM Grand Médine fi nga xam ne seen candidat euh, Amadou Ba fa la daal di voté représentant ñi nga xam ne ñoo di les candidats dafa sooxe lool soo xool si 19 candidats ñeent lañ fay gis ba juróom lu nu mel lan moo ko mun a expliquer. waaw loolu warul bett observateurs yi parce que campagne ren bi dafa nekk campagne bu inédite. parce que campagne bi la ñu gis ay responsable état Sénégal daal di jël ay moyen ñu ne ay candidats lañu dem def déclaration sur l'honneur dem ñu tirer seen i bulletins dépenser si ñoom ay millions ay milliards ñu dem ba ci cappaandaw bi ñu daal di ne bokkatuñu wooteel leen diw kon warul bett nit ñi ñu dem ba ci centre de vote yi gis ay candidats yoo xam ne dañu fa am ay représentants waaye loolu dafay nekk loo xam ne lu ñu war a jàngat la ci élection yi di jëm xool leen saafara lañ ci mun indi waaye ñun yàlla dafa def aussi ñu boo xam ne. dafa complémentaire maanaam système bi ñi ko ŋànk système électoral bi bu fa candidat yi newul sax waa société civile ñu ngi fa waa Sénat ñu ngi fa observateur yi ñu ngi fa pour assurer la transparence du scrutin. Mm-hmm. alors euh, ñu gis aussi beneen mbir ku si mel ne honorable euh, député Guy Marius Sagna ak ñoom seen wax ni ñoom seen mbër dana gagné élection yi si premier tour yéen euh, propagande bu ni mel ndax war na kaa mën a war naa mën a am surtout si bisub élection mel. waaw xam nga élection yi yàlla dafa def campagne bi fekk fi sénégalais yëpp ku waxal yàlla gis ne le président Amadou Ba campagne bi mu def amul benn candidat bu ko def donc euh, wër Sénégal fépp fu mu dem population yi ci weeru koor ci naaj bu tàng population yi génn góor jigéen mag ak ndaw donc mu am yoo xam ne euh, ci histoire campagne yu Sénégal bariwul donc euh, mais aussi mu nekk seul candidat boo xam ne dafa wax ak sénégalais yi ci programme ci vision boo xam ne da ko lal si jàmm pour dem ci naataange boo xam ne dañ koy bokk ak ñëpp donc euh, ñëpp leer nañ nit ñi ne élection yi ñu jëm incha allah bu ñu ci demee président Amadou Ba da koy gagné gagné bu leer nañ li ca des yëpp nag ay waxu politique la rek waaye ñun suñu biir xamante nañ xay xam nañ ne dynamique gagnante bi nga xam ne président Amadou Ba impulsé na ko. donc dafay concrétiser wu au niveau de de l' électorat et amuñ ci benn sikk sàkk amuñ ci benn sikk sàkk et d'ici quelques heures eh, résultat urne yi dina ko confirmer mais loolu am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax parce que réalité terrain bi loolu la wone travail sérieux bi loolu la wone mais jokkoo bi ñu def ak askan bi donc à travers le pays aussi loolu la wone moo tax am nañ ci yaakaar bu baax a baax di ñaan suñu borom mottali ko parce que loolu mooy jàmm réew bi loolu mooy njëriñu réew mi te loolu mooy lii tabax réew mi ci année yi di ñëw. message bi ngay lan la pour terminer. waaw message bi may lancé rek mooy que di ñaan Sénégalais yëpp dal et nit ñi rester démocrate nit ñi rester démocrate parce que euh, comme ni ma ko rappelé processus bi ñu ñëpp nangu nañ ci d'accord nañ ci que ci benn rëq-rëq buñ ci gis. bu ngoonee incha allah bu résultat yi génnee nit ñi am mot ak dal boo xam ne daal di nangu lii génn ci résultat yi donc Sénégal continue avancé mais man maa indi remercier. Thank you.